Bienvenue sur Salam Vision. ci yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb Sayxi Fadilu mi ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb Sayxi Fadilu mi ay maqaama yàlla ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar d'abord di lay tatagal Euh, di lay jox sa yéeguwaay ndax wax nga wax nga laaj nga question bu am solo ndax rab fi mu toll daal lëmbe réew mi rab yi fi mu toll dafa sonal doomi aadama yi itam rawatina jeunesse bi xale yi lay gën a dugg am na ñoo xamante ne da yàq seen àddina carrément dof leen am na ñoo xam ne daf leen di yàq yàq seen àddina maanaam comportement yi benn ci la bokk euh, ndax di gis jigéen joo xamante ne ndeysaan bu nekkee xale la ko rab di ba bu màggee am ay njabootam sax rab da koy sonal euh, da gis koo xamante ne itam beneen da cee am rab yi fi ñu waroon dëkk fa nit ñi dëkk léegi ndaxte dëkkuwaay rab yi moo tax nit boo dee booy samp sa dëkkuwaay danga ko war a xool ba pare Mamadou. waaw monde bee xat léegi ba xoolatuñu dëkkuwaay foo waay am rek da ngay dëkk foo am kër rek da nga yàqamte tabax ko yëkkati ko dëkk fa say njaboot te amaana du dëkkuwaay da ko war a xool ndax soo ko xoolul tey ji mën nga dem tabax sa kër dem dëkk fa say njaboot di feebar mbala ñuy wàññeeku di wàññeeku benn par benn nga foog ni kii fekk dëkkuwaay ba moo baaxul lieu bi nga dëkkee moo baaxul jinne may moom yéen ñuy wax <laughs> maanaam du nga xamante ne day dugg ci école di dugg doom aadama yi di dugg xale yi gisoo ñi muy dugg mooy xale yi nga xam dañoo bàyyeeku bala ñi nga xam dañoo jàng alxuraan bala ñi nga xam te dañoo yiw moo tax dama naan faj rab te mënu ko bul ci dugg nga na ñoo xam dañuy engagé ne mën nañoo faj rab Mamadou te fekk mënuñoo faj rab ndax boo calmé leen nit ki rab après rab ba day jël pongé bu ñëwaatee bu la duggaatee dalay sonal il faut que mu fàdd la mbala mu gaañ la mbala mu indi la problème mu dépression yooyu dafay am. am na ñoo xamante ne maanaam du ñu faj rab dañ koy calmer moo tax day jékki-jékki ñëw euh, maanaam boo calmé nit rabam te fajoo ko rab mën nañ ko dindi ci yow day mel comme dégg rek samp la dégg jam la nga sempi dégg boobu léegi boo ko sempee te dindi woo ndey ji maanaam mel na jaan bu la màttee nga lugg ko boo luggee jaan ba pare dangar gi day dis foofu léegi boo koy lugg da nga war a luggaale dangar gi dindi dangar bi mais tey ji nga faj nit nga maanaam dañ naan rab du wér day jël congé rab day wér ak nit ku nekk ak rabam li laaj am na ñoo xam ne tey ji rab waroo ne dañuy tuur deret nga tuural leen deret seen rab yi maanaam day rakkaaju am na ñoo xam ne da naan da ngay faj seeni rab te ne fajoo ko da ko calmé léegi nag rab bu calmé maanaam mooy rab bu jël congé day jël congé dem ba benn certain moment rek jékki-jékki duggaat ki am na ñoo xamante ne naan mën nañoo faj rab jël seen i bitéel boo xam ne boo ko sottee nit ki faaw mu kaddi kaddi daanu bu kaddi kaddi daanu boobu léegi li koy jat li koy dindi ci moom yow yaa koy rocciwaat te fekk ne ñooñ fajuñu rab maanaam dañuy gën a yee rab seew am na ñoo xam dañuy ñeengu rab ndax lan mooy ñeengu rab da jël maanaam ay affaire comme maanaam comme li nga wax jaaro mbala ci seen nga xamante te tey bu nit ki duggee am rab faaw sama rab yëngatu bu yëngatoo dañ lay bi te léegi nag ñu ne ah waaw kay soxna Mariama a da daaneel na ko léegi nag moom moo naan dama koy faj léegi nag tant que faju la nga wér itam rab bi du jeex ci yow du deñ loolu dafa am commercial comme maanaam ni ñu koy dudee kat <laughs> tey mën naa rocc rab bi nekk ci yow dugal ko ci daam léegi bu ko defee man damay commercial lay doon su ma ko dindee ci daam ap su ko dindee ci yow yóbbu ko ci daam après daam damay lijjantiwaat xaalis bi ma fay ma dindi ko ci moom dugalaat ko ci keneen mais rab mën nga ko fajal nit ki ba nga xamante ne day disparaître carrément mais am na ñoo xam ne commercial lañ koy def ñu dindi rab dugal ko keneen moo tax booy faju ji rab yow sa bopp nga yóbbu nit ku amee ay rab ba nga koy yóbbu rek moom sëriñ bi dèjà war na ko génnee sarax ba bu génnee ci moom du keneen waaw yooyu dafa am bu la toppul topp sa sët moo tax boo maîtriser wul fajum rab yow nga engagé ne da ngay faj rab après yow dalay topp topp sa ay doom yooyu it dañ koo jar bàyyi xel ndax ëllëg àddina dafa gudd tànk mën nga di dëkkee di faj nit di faj ni après nga jóge fi muy dem sa ay njaboot ndax da nga dul waan génnee sarax yi da nga dul sacrifice ndax rab day laaj sacrifice tey boo engagé nit koo xam dafa amee ay rab maanaam normalement war na la wax sacrifice bi lay laaj nga jox ko mu may nit ki jàmm du yow du engagé sa ay njaboot waaw loolu ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw Bienvenue sur Salam Vision.